daal waaye nag di ñaan yàlla ba ñu àgg foofu mbir mi jeex takk ci dëkk bi jeex takk Sénégal jeex takk ci àdduna ba kenn ku nekk mën a dellu ci say ci si biti kon daal loolu mooy ñu ko lay tey ab koor ga ñu jox reer ñaari junni ba ne muy deux mille taalibe ñu commencé ko teg te incha allah rabbi fii ci Touba parce que ñu ne loolu ñu def ko ñaata koy def rek ngir yàlla foog naa soxla wu ñu naan sax lañ ci ñàkk loolu tax ñoo jóg li am solo rek moo di ne objectif ñu atteindre objectif mooy lan mooy gone yi buñ demee bu guddi bu ñu xiifee nañ leen jox ñu lekk te loolu moom dañ koy def sans compter ndax ki nekkul fii ci kër gi loolu moom la fi nekk woon foog naa boolam bi Touba gépp njaboot suñu Touba kenn ku ne xam na loolee aussi moom la ñu wéyal ba kon loolu moom lépp loo xam ne ñu budgétiser la wala ñu continuer xanaa peut-être lañ ci kii rek moo di ne ñu fàttaliku aussi li nga xamante ne président laaj bi def na ko mu yëkkati 330 millions moom si jagleel ko daara yi fàttaliku aussi ndimbal yi nga xamante ne bi sëriñ bi aussi daara yi ak mboolem kilifa kon lii day dikk rek dugg ci action yooyu nga xamante ne bii kilifa yu baax yi ñu ngi koy dugg ñu ngi daara yi ñu di ci woo nag ñëpp nag kenn ku nekk fa nga nekk lépp loo ci mën ci daara yi lépp loo ci mën ci néew doole yi rek maa ngi ko def ndax ginnaaw bu joxe ay saabu joxe eau de javel suñu def foog naa li am solo nag mooy dañ jox nit ñi lekk nga xam ne mais di moytu nañu continuer di ñaan nañu nga xamante ne bii moom la ñu wax docteur yi kon nañu xam ne su fekkoon ne dañoo nekk ci ab xare dañ naan de gañe nañu benn bataille waaye guerre bi dañu ndax tant que jàngoro ñu ngi ci biir réew mi. tant que mi ngi ci biir Afrique tant que mi ngi ci biir adduna jërëjëf ndax ci Chine la jógee kenn ku nekk toog di reetaan naan oxymore bu xëy xëy law jàpp si kon ku yëg virus baa ngi dund rek kenn ku nekk en sécurité kon nañu xam ne suñu lépp dafa lëkkaloo kon nag nañu continuer guerre bi nañu continuer vigilance bi nañu gën a fonk ket bi nañu gën a fonk moytu bi nañu gën a fonk xamoo bi waaye nañ ci boole aussi dimbalante ndax fi mu toll nii wax dimbale bi la kenn ku nekk loo tane si moom rek daa nga ko dimbale yàlla rek tax ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm